day liggéey boo xam ne l'islam mabda mab ci mabda l'islam da cee bokk lu ñuy wax maslahatun amma ak maslahatun ne day yem ci yow ak njëriñ loo xam ne ñëpp ko bokk dafa bokk ci ay principe am njëriñ ñëpp bokk moo gën njëriñ li kenn bokk lis jàkka wax ne bala ko tabax ci barab wartu doon fu ñëpp foo xam ne alal jàmbur la wala ñëpp ko bokk war naa doon loo xam ne da nga ko moom wala ñëpp maase ji moom ko jox ko jàkk ji moo tax jàkk jàkk dëgg dëgg àgg na ci islam ci ay na foofu xam ne loolu yàgg ji islam la yaatal ji itam bu ndax fu ci ne ay kër la ñii nangu kër yi ko yokk ci jàkk ji ba jàkk ji exprime aussi kon loolu lu yàgg ci lislaam la yoonu murid bi itam nay xam ne ginaar bu sëriñ bi ñibbisee Tuubaa ba Cheikh Mouhamadou Moustapha wutu ko fukki at ak juróom-ñett boobu xam ne dëkk bi tuuti na lool daanaka mëntoon sa ab village ci jamono Cheikh Mouhamadou Fadi nag bi ñu doxee ak diir si dëkk bi tàmbalee nañ Cheikh Mamadou Fall moo xëyoon bis wax ne xoddiku ca bëgg a rekkiliku waaye suñ dëkk bi ne loolu du fi am waaye nag mënta nekk daal di def lotissement bii ñuy def andi tey ba dëkk bi mel nii Cheikh Mamadou Fall ba mu koy def daa waxoon ne lu ma gàll ci kaw ñëpp la ci sama kër bopp la laa koy am daanaka ñu ma xaaj biir kenn daj ko. boo demee ko Cheikh Amadou Fall da nga xam ne la ca ginnaaw lépp ci biir këram loolu dañ ko rek ba fa la ko tàmbaloon Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fall mi nga xam ne moom la defoon jëwriñ ja mu di ko liggéey mu tàmbalee ko ca kër waajuram Soxna Fatima loolaa war a dëkk yu mel nii mu def kon nit ñi waa kër Serigne Touba ñu leen gën a yërëm foofu waaye liñ leen di yërëm yërëm nag nit ñi boo leen bëggee dimbali dañ leen teg ci aw yoon loolu mooy di indi liggéey bi Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ba muy sanc armée yu bees la waxoon na ko neewoon nag lii may def te nit ñi xamaguñ ko waaye li liñ ciy bañ de dana leen jural denc mu ñaaw denc mu ñaaw nag armée yu sori gën te suñ rek ci biir suuf Tuubaa si rek matin lu ko daan la wax ne li ma war a def ci ni suuf Tuubaa mën na ko ci moom waaye booba bi ko Cheikh Sidi Moussa di toxal boo jaaxaloon na ñëpp waaye ñëpp di wax na nga xam ne njëriñ la ndax ko dugg ci armée xam ne lépp mu ngi jëmoon ci armée yii da xam ne doontul wala wala. Cheikh Abdoul Khadir Mbacké diggante bi fi nekk yàggut xam ngeen ne def noo ko fi yoon ba ci yoonu Mbacké lu mag bii ba mu demee ba yëf yi metti ba ëpp nag ci la ko mujj taxawal ndax boobu bëggutoon mu lool ay kër. ndax am na ci yoo xam ne ay kër la ñu dëkkee moo xam ne lii fu ko dindi bu dee defe rek lam yàq la lépp waaye corniche bi xam ngeen ne lépp benn yoon ba ñaari yoon ba ñetti yoon Serigne Saliou Mbacké dindi na ko ngir bëgg mbedd yi feex ndax danaa da ci daa gis gisee bu sore sore danaa wax ne réserve yi li tax ma di ko tere mooy ab dëkk day dox te dëkk buy màgg day àndal lu bari war naa ami jàkka war naa ami fajukaay war am yeneen yoo xam ne ànd ki dëkk war a am marché bu fekkente ne dëkk lañ lépp nag ba dëkk bi wutum nooyee boobaa luñ soxlaat dana di kon ko sama kër gi ñu nekk ci Jannatul Salaam ci yotu moo koy am la ci jotale mooy moo tax ndigal rek am solo ndax dafa fekk ñu joxoon ay pàcc yu ko jege ci wet fekk am réserve la ba di ko bëgg booba ku ñu wax ndànk la moo nekk seen biir mu ne sëriñ bi de daa joxe ndigal ne reseau bi yëpp bu ko kenn laajate daañu ma nag xam naa boo ci mën a waxtaan ak sëriñ Modou Gueye nga ko bu baax ma dem wax ci sëriñ Modou Gueye sëriñ Modou Gueye ne ma sëñ caa demal sa bopp mu ne ko yóbbu naa ci sëriñ bi ba mu ko waxee sëriñ bi sëriñ bi jox ma nekkoon nañ ko jox ñetti pàkk yow ko joxoon ci wàllu ci mooy sëriñ bi. ba yàlla def gis gisaana sama bopp sëñ bi dama ko siyaare rek mu ne ma mbaa dama santaane ci pàcc def nañ ko ma ne ko def nañ ko ma ne ñaata pàcc lañ def a jox ma wax ko ñett mu ne ma kon nañ la jox léegi féetale ci wet bi nag daane muur bu fekkee joxoon nañ fekkee nañ ko dim te jox ko si kon moo tax ndigal rek am solo kon ñoom yërmaande ci ñoom day kon waaye bëgg ndiw li ñu ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ay mbaar rek a góor def doon suñu tool yëpp nekkoon ay bitik waaye ci jiir ak xilaafam ci la xëy joxe ndigal man mii la ko santoon ma àndoon foofu ñoo ko ko àndal moo ne mbaar bi kon dañ ko tàmbalee ci mbaaram ko suñu tool yi nga xam ne Cheikh Modou Fall fi la day génn di fi waxtaan ci Magal Touba waaye nañ ko tàmbalee ba nga xam ne lii ko wax ñu jógee fa sëriñ si bi mu Cheikh Abdoulaye Mbacké dindi mbaaram loolu kon loolu fi yàgg ak Cheikh Sidi Mokhtar xam ngeen ni lii ñu tàmbali ci corniche bi ci mujjug ak ñàkkam ci la ko santaane woon ba ñu defal ko ba lépp sax ba mel ni mu mel rek waaye xam ngeen ni nit ñi bu ndigal yàggee rek dañu jàpp ndigal bi dafa mag ba naa ñu delluwaat ginnaaw mi tam ñoom moo ko waxee Cheikh Cheikh Mamadou Bara ak Cheikh Mamadou Moutakha ñu ñëwee itam xam ne. lii muy def nit ñi lay defal lay defal ndax ku dox ab diir da xam ne wala al axiratu xayrun laka min ad-dunya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda képp ku ci amoon fii nii ak bu nangoo ni nga def xolam rek yàlla dana ko ci ubbi bunt yu gën a ñëw ci moom kon li ci desaat rek mooy eh, suñu saay bu nga jotlewaale sëriñ bi ne ko. Cheikh Mamadou Mountakha wax na ne ginnaaw bu dee bu liggéey yëpp ak itam nañ xam ne saytu gi ak sàmm gi da ko tegaat ci loxo sëñ am bi li tax ko ci li tax mu teg ko ci loxo bi nag mooy corniche bi ak marché bi yëpp saytu bi ci loxoom doo ko tegaat ndax fa mu ko tege mooy dëkk bi di Touba ba ko Sëriñ Touba ñaani borom ba may ko ko maam Cheikh Ibra moo àndoon ma ñu gor dëkk bi seetal Touba kon bu demee ba adduna nëx ba lënt lënt yi bari Cheikh Ibrahima képp ko du ci liggéey moo tegaat ko ci loxo kon nag li ci ñaan mooy lépp lu fi jëlee woon nañ fexe bu mu fi gis waat loolu mooy li jiitu ci liggéey ndax maam maam Thierno ci ginnaaw Serigne Touba ci teewaay Cheikh Maodo Moussa ñu wër Serigne Touba gépp ak maam Cheikh Anta ak rakki sëriñ bi ak mboolem magi teel wax ju gudd la waaye biir wax ja waxoon na Cheikh bi ne ko Ibra Fall waneeru yoon ndax ba ba ba ñëpp ba ba ñëpp gën a nekk rek yaa leen gindi ma man leen man lëndëm bu gën a gi amoon nag moo amaat ndax ki daa gis ba gisatu boobu lëndëm moo gën a kon nag yéen itam da ngeen xam ni li ngeen def da ngeen a wan waatu noonu ndax Cheikh Ibrahima kat képp ku jëriñ ci Serigne ci moo ko yàlla jaarale ndax moo wane Serigne Touba wan ni ñu war a jëriñoo ci Serigne ndax bu defutoon noonu kat Serigne Touba dana ñëw ba delluwaat te kenn du jëriñ ci moom kon na ngeen xam ne marché bi tey ñu jël tudde ko maam Serigne bu jaay nañ xam ne delloo njukkal Cheikh Ibrahima Fall na ko Cheikh Mamadou Fall delloo njukkal ca jumaay Touba kon Cheikh Ibrahima dara lu ko jomb ci yoonu murid amul dara lu jomb ci mbirum Sëriñ Tuubaa amul fenn fu mu waree ci mbirum Sëriñ Tuubaa yi amul ndax sëñ Abdou Khadre daa fi bi ka sa'altu maaliki kaw ni yéen a su nuura saliki wa sëñ gisaabi naasiki bi man jala wal mu xam mu ne bi man jala mooy sëñ Bàkke Buso ndax mbiram dana fàng wal mu xam mooy saye ba fàng ndax mbiram yàlla da ko am na xaalis bu du siiw joo xam ne ñëpp ko dégg ñëwoon na ci Serigne Touba ba mu dikkee daal di wax sëñ bi ne ko yaa mën noonu ko si ma sëñ Moussa Ka waaye boole ñaari gaay yu bokkul yoon ndax sëñ Bakki Moussa mos sa faat waxtu juróom waaye Cheikh Ibrahima Fall mos sa julli waxtu juróom ba Serigne Touba génnee mu wax ko ko sëñ bi dana ko faq di ma ànd nga ko da nga bis tekk kenn gënatu mat kenn gënatu laa mat xaalis kon nga lu mu seetlu loolu suñu tubaab firi ko kon waxtu mu ne damay wax ne ku ma gis nga am lënt ji mu seetlu rek sa gëm suñu tubaab gëmatuma ko ba sëriñ Soal bi lii lay sëñ bi defoo sëriñ Soal bi Moustapha Dégg mu ne seex bi Moustapha ci keseñ bi ci njaareem fekk ndax loolu moo fi indi seex bi la mboolem lu ñuy jëriñoo ci moo murid muy muy toog ci suuf toog ci kaw joxe ak yéen digal la nga def lépp seex bi laa ko di ci suñ sooy bu ne nag dafa dugg ci biir kër gi seen suñ bànk saw boobu mu bokk ci ñu lay attu bi kër gi ñaanal seex bi naan ko naan ko ceeb bu ngeen xamoon li ci bu ëttu bi àndee ko kon da ngeen xam ne lii leen sëñ bi defal seex defal ko adduna ak alaxira ndax yéen fu ngeen nekk rek ndigalu Sëñ Tuubaa def moo leen fa bàyyi te boolewul leen Sëñ Tuubaa dara ndax seen lépp dara génn ci sëñ bi bu ngeen jugee ci yeneen duggaat ci yeneen ndigal te ndigal lu ci accès da ngeen koy teerloo xaar kanam bu tànn ak mbégte mu moo xam ne loolu kenn xamutum yow kon li ci des rek mooy yokk yitte ak taxawaay bi ngeen xam ne Sëriñ Tuubaa liggéeyal ko ba mu gërëm la ci la defaroog adduna nekk ci la defaroog alaxira nekk kon nag nañ góorgóorlu góorgóorlu bu baax a baax te fexe ba xam ne yoon bi sëriñ sëriñ Tuubaa la Cheikh bi daaw rek sëriñ bi ñag na ko waaye li koy waral rek ci biir ñag bi la juddoo kon nañ góorgóorlu ñun fexe ba li waral ñag bi ñu ko jàpp yàlla nañ si yàlla dimbali ci barke sëriñ Tuubaa ak barke liggéey bii ngeen doon liggéey sëriñ Tuubaa ci buntu noo Cheikh Ibrahima ndax moom kon lu jaare ci moom Serigne Touba dana ko gaaw na ko waxtu ne ma di ko fàttali ci mujju njaareem Serigne bi dafa jël moom mu weex dafa jël moom mu weex am lu jël jël moom mu ñuul am lu weex day jël lu ñuul li am lu weex jox ko Cheikh ne ko Ibrahima Fane. ba ma kenn xamul ba ma kenn xamul mën naa ne yow rek ma bu fekkoon kenn dana ma ma kenn xamul ma ne yaa ma kenn du ma xam jël bu weex bi ñu amee lu weex def lu ñuul ci biir weex am nga ko def lu ñuul ci biir jox ko Cheikh Issa ne ko Issa ne bi ma ñëpp xamee xam nga waaye kenn du ma xam kon suñu tubaab kenn xamul ko lu weex te nga xam ne la mu waxoon maam Cheikh la ndax boo Cheikh la dafa yónnee ci moom ci njariñ ne ko maam Mbacke ndax deseeti nañ fi dara ndax boo xewoon ni sotti ko bu bari boobu sëñ bi ne ko neen Ibra Fall la ma waxante woon moom ci Mbacke bi lépp lu ngeen gis ci adduna na ngeen xam ne ndab la luñ duy ba mu tuuru waaye la tee la tax la tax ñu doon duy ndab la ëllëg tax ëllëg tax kon sama bi lépp ëllëg la kon yéen na ngeen xam ne seen mbir mépp ëllëg la te dëggal ngeen koy ndax Baye Fall li Cheikh Mamadou Mountakha wax Baye Fall dara Baye Fall du dara ñi ko million di ko joxe te boo demee ko ci néew daal ci yéen rek lañ ko gisee kon danaa ci def ni xam-xam si dinañ ne seet si ci biir waxtaan wa rek. ñuy firi bayitu ilaa qaada llaahu maa lam yakun kooku ne ko ko firee mu la waaye day mel ne bu ma toogul ak nga yor kaasu kafe ma yor kaasu kafe ma naan kaasu kafe ba ñu xel waat kaso man naa sañ naa laa wax ne la kaas bu ma naanoon man képp ko naan te kenn waxee ma ne ko déedéet bu ko firee noonu loolu complexe la. Mm-hmm. si leen te lool boo ko ci biir yoon ne ko li nga wax complexe la ne ko bu ko firee noonu illa yaqaadallahu ma rabbikum Sëñ Tuubaa dafa wax ne yàlla suñu moom defal na ma loo xam mos koo defal kenn te loolu ko defal kenn daane ko loolu nag hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dii yonente yàlla Suleymaan daa ne ko maa ngi lay ñaan nga ma nguur goo xam ne kenn mosu ko am te kenn dafa ñaan suñu borom ne ko ilay qaadallahu waalo yo ko ne ne ko benn firnde rek laa def jox Cheikh Ibrahima Fall muy Baye Fall kenn ku ko am ci àdduna wut benn nga ci jiw fi ñu ngi sant di gërëm nag mboolem ñi ngeen àndaloon liggéey bi sëriñ Dame Soda mi nga xam ne moo doon jot li kàddu yi léegi ci turu sëriñ bi wax na ko ñun ñëpp kon jël ñu leen di jëlaat ndax bu leen tuddee rek sama tur tudd na tur tànn na ci biir. waaye ñu ngi sant ñëpp kon li desaat ci liggéey bi mooy bu koor jeexee ba ngeen jógee ci ndox mi sëriñ bi dana leen garab yi ñu a jëmbat yi waa commune bi sant barbar yëpp nuur ko ndax comme dafa ne ci kaw yoon boo muti barbar du du mën a sotte bi ñu ko xoolee nag daanaka ñeenti junni barbar dana ko war garab yi itam waa Touba ci kanam ñoom la ko sant ak daayira bi ñuy wax booloo ànd naata Touba ñoom ñoo toppatoo garab yi bu ko defee sëriñ bi taxaw ko ñu jëmbataa ko ba produit bi bu dee kon loolu sëriñ bi moo koy fàttali bu demee ba liggéey bi jeex di sant bu baax rek di leen di ñaan liggéey bii. bu may nekk aaxiru xidma ci liggéey sëriñ Tuubaa te ittee ju fa indaale suñu borom fekk ko aajo ju fa indaale yàlla fekk bu dee wéerat yàlla na yàlla saafara bu dee ittee ju mu soxla te bëgg ko yàlla ko yàlla dimbale mu am ko mu këram jot barke suñu